ginnaaw bi nga xamante ne julli nañu euh, korité ci àdduna bi yëpp jàpp nañ ñi ñëpp ko julleendoo ñu bëgg rek nga wax nga am ci situation bi. sant yàlla bu baax d'abord li may wax sant yàlla bi ñu mayee euh, ñu fekkee ndax am na ñu ko waroon daaw yàlla def na fekke ñu ko rek di ko santit bi ñu mayee ñu am doole ak kattanu mën koo woor. ba mu jeex wor ko yit ci ni ñu ni moy anam biñu ko biñu ko biñu ko lislaam sante sant yàlla bu baax bi nga xamantene bi tay euh delu ci nañ ñew nañ tokki jakk ji imam bi delloo suñu ci li nga xamantene ne mom lañu l'islam digal moy ñu nekk ben moy ñu yénenté jamm moy surtout ñu waxanté lu rafet bam ko waxé tay euh ci sama xel dama né alhamdulilahi rabbil alamin au moins euh, jàpp naa ni am lañu fi tok ma bokk ak ñom bor wala ñu bokk ci beneen boor wala rek ñu nekk ay citoyen simple ñoo xam ne bu ñu fi jógee bu fekkee kàddu gi amal na leen njëriñ dina am lu mu sopp ci ñoom parce que wax ju ñaaw rafetul te loolu la imaam bi wax tey te dellu si na ci lu am solo te principe boobu euh, boo demee ci mbokk niñ ko décrire ci téere yu mag yi moo jiitu muy dëkkandoo te tey daf ñu delloo dëkkandoo nañ ko rafetal donc man moo tax sànq ma ne damay profité ci occasion bi wax naa ko ci euh, baatu tubaab ni damay jéggulu ñëpp ñu ma dëkkal indi na ma benn cër boo xam ne man maa ko yorandi mu nekk ci seen ci seen ay jumtuwaay donc tey euh, dañuy profité ci occasion bi di sant euh, te mën naa ko wax ci turu sama tur man en tant que élu ku ñu fal di ko wax ci turu it administration bi yëpp nga xam ne commissaire moo leen fi représenté muy gouverneur muy préfet muy ñëpp ñi fi nekk parce que yàlla def na déggoo bi war am na ci suñu biir ci dossier yi nga xam ne moo intéressé Thiès encore ñu leeral ko ci dossier yi nga xam ne moo intéressé Thiès intéressé Sénégal leneen li nag c'est des choses personnelles te loolu taxul nit ñi jóg donc tey imaam bi bu ñu ci delloo dañuy wax ne delloo na nañu ci li nga xam ne moom la ñu yàlla digal delloo nañu ci li nga xam ne prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu la digal mooy ñu booloo nekk benn mooy ñuy waxante bu rafet mooy ñu dëkk dëkkin bu rafet dëkkin bu rafet nag lépp ci biir boo nee respecté nga li yàlla wax ci dëkkandoo mën nañ teg loxo kuwaat ne yow jullit la parce que jullit dëgg mooy respecté loolu donc dañuy profité ci occasion bi parce que comme commissaire a maa ngi fi gouverneur keneen a ngi fi préfet ndax liggéey bi yenn saay mu demee noo xam ne dañuy foog du ni ñuy foogee ne baax na mën na am sax ñu laal loo xam ne xaw na yàq te loolu nekkul suñu intention ñu professeur baalu ñëpp baax di wax ñëpp ni dëkk bi ñu te ñoom ñu moom ko citoyen yi liggéey kese moo tax ñu jox na te moom la ñuy xëy ci la ñuy gont moom la ñuy jéem kii defar nag yenn saay nga yàq te doo ko yëg te loolu la ñuy ñaan ak njéggal di wax aussi nit ñi dañu dellu nekk benn comme ni ko kii wax def dëkk dëkk dëkkin bu rafet di waxante rafet te vraiment vraiment jiital intérêt euh, général bi te di wax ni yamul rek ci ñun ba ci suñu ay mbokk chrétien yi nga xam ne ñoo nekk l'islam sax daf ñoo digal pour ñu nekk ak ñoom ci jàmm à plus forte raison ñun ñi nga xam ne jàpp nañu ñun ay jullit lañ te dañoo doon jullit vraiment occasion bi ñu ñu offrir mooy li ma wax sànq ñu ciy demandé ñu ñaan njéggalu borom bi subhanahu wa taala di ñaanit ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yëpp lépp lu nga xam ne def nañ ko ci njaamu ci ci ci weeru koor bi yàlla nangul ñu ko ñaan ñëpp ñi fi nekk ci administration ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi liggéey boo xam ne amal na dëkk bi njariñ lépp luñ ciy def yal na ko yal na doon li baax yàlla yàlla nangu seen i ay intention yu rafet yàlla ful aussi seen ay position ba vraiment ku ci nekk fi nga nekk nga am station bu gën a kawe man loolu moo ci sama xalaat eh, occasion bi ngeen ma offrir tey pour ma wax ko sant yàlla bu baax a baax a baax la te li mu wax nii am na ñu ko fekkewul daaw fekkewuñu ko ren ñii nit du gën leen moo tax mais ci li ñuy wax rek yàlla moo bind dee moo sàkk dee moo sàkk dund moo ne woon seen limite boobu la ñu nit dañuy ñaan yàlla fi ñëw ñëpp ren yàlla nañ ko fekki déwén di ñaanit képp koo xam ne yaa ci liggéey bu mën a nekk yàlla na yàlla dimbali bëgg a jóg gën ci kawe te mu doon sa njëriñ sa njëriñu njaboot vraiment ak njëriñu kii bi parce que bu ñuy wax euh, ci xew-xew fii ci biir euh, ci wàllu euh, xabaar tey gis na ni libération Karim Wade ak tamit diggante Idrissa ak Talla Sylla yan kàddu nga ci rotal di ñaanal Karim Wade comme yàlla teggi ci moom natt ndax dañuy renvoyer lépp ci yàlla man foofu laa xaw a wuteeg ñu bari man damay jàpp ne li ko daloon nattu la nattu bi jeex na euh, dañ koy ñaan yàlla euh, nattu bi ko daloon yàlla bu mu dalaat ci kawam di ñaan yàlla aussi njabootam yàlla na leen fekk ci jàmm loolu mooy suñu rôle di wax ni bés bu mel na tey man japp na ni du bëss bo xamné war nañ ci yëkëti dara lo xamné rek day doon kàddu fitna yeneen bés yi sax du yoon waxuma la ak bés bu rafété ni tay bo xamné am nañ occasion bo xamné war nañ ko saisir pour rebo moy tay euh, communauté musulmane monde bi yëpp ñoo jëlendo ñëpp donc situation bi xew ci Thiès ak ni mu xewé ak neneen lu mu mënon xewé man japp na ni ay ay ay nit ñu mat nit ñoko xex donc lu ci mëna am dañuy ñaan ci bëss bu melni bu doon réro yalla yalla rafetal parce que moom moo ko mën donc su ma fi nekkee tey di wax loo xam ni ay kàddu politicien la boo xamante ni bi sama intérêt parti moo tax ma di ko wax Euh, damay waroo ak li ma gëm man déggu leen ma ci coow li te yaakaar naa su ngeen ma ci déggee ci luy defar lay nekk bien vrai que ci parti laa bokk Idrissa la àndal loolu moom leer na ñëpp te jamono ñaanu ma yàlla jamono dox ba ma woon ko ginnaaw te du am donc may wax ne situation bu amee man ci ñuy prêcher pour que jàmm am ci ñooñu laa bokk Idrissa Talla ak keneen ku mu mën a doon intérêt Thiès intérêt Sénégal moo leen ñaan donc nañu fexe ba tey lépp loo xam ne euh, yàqu na ci diggante képp koo xam xam na yaa ngi fii ci ci ci ci ci dëkk bi te sa allahuma yàlla nangu ko nga fexe nit ñi booloo nekk benn te ko ci ngor tek ko ci dignité tek ko ci ci ci te ci solo moy sammu digënté bi imam di wax lool def ci am solo lo diglé ak nit wala leneen lu mu mëna doon nga tek ko ci ngor bu boba ci du am mais yeneen diñ ci duwal yépp bokku ci té ñaar may ñaan aussi ñen ñi nga xam ñu ngi ci arène politique wax ju ñaaw diñ ci wax yépp jaru ko ci parce que aussi dañu wara am respect ci ñi nga nyomlen ñom lañ ñom lañuy administrer donc man côté boobu bëgguma ci sori euh, su nak am réaction politique dina ci réaction ci politiquement mais journée tey bi daal li ma ciy ñaan mooy yàlla fexe tàppe xol yi ñëpp booloo nekk benn vraiment pour l' intérêt de Thiès pour l' intérêt du Sénégal et que ñu avancé jëm ci kanam. kii nag ñu jàkkaarloo moom mooy euh, Serigne Omar dem dañ koy bàyyi rek euh, mu wax ñu moom mooy kan. waaw man Omar dem laa tudd maa ngi dëkk Grand Thiès juddoo Grand Thiès màggee Grand Thiès fi may laajee nii ci jumaa ji la. ñoo ngi baalu àq ñëpp nag ci weeru korité bi ñu jóge nii ndax weeru yërmande la weer boo xam ne yàlla yàlla may ñu fekk ko ay déwén yu déwén yu déwén yu bëree bëri ndax weeru yërmande lépp lu ci julli ci waroon def def nañ ko mooy weer boo xam ne loo mën dimbale ci nit nga dimbal loo mën jéggal ci nit nga dimbale ko mooy weeru korite yàlla def na passé nañ ko ak jàmm yàlla nañ yàlla may ñu fekk ko ak déwén ay déwén yu bëree bari bari bari bari sëñ Oumar bu ñu doon wax tey euh, jumaa yi Grand Thiès dafa nekk ak euh, sëgu euh, Madoki ñu bëggoon rek nga wax ñu tuuti ci histoire jumaa ji Serigne Babacar Sy histoire bi foofu la jóge entre 1955 53 ci lañ ko defar fii jumaa ji ak sëgi defe naa ku ñu naan euh, commandant Lami ñoom ñoo ko lotissé ak mag ñu baax ñu fi nekkoon bi Alaaji Mamal Lamine Kan ak ñooñu ñu am ci ségi ségi nag ségu Madoki la defe naa ci su ma juumul 1918 la woon Madoki moo fi doon nekk di jàngale alquran ndax histoire aussi li ma mag ñi nettali ndax 1918 man fekke wu ma ko mais li ma mag ñi nettali mais histoire la boo xam ne grand caisse te grand caisse yàlla def na fi loo xam ne ay mag ñu baax bi dëkk mooy quartier boo xam ne ay kilifa dong fi dekk ay mag ñu baax fi dekk mag ñu baax ñi nak yalla yobbu na leen ñom ñepp fim mu nekk ñun ñoo fi des ñun ñooy relève ñun ñoo fi di nekk ñoo fekkon suñu baye ci jumaa ji ak ci segi ñu ñu ñew jël relève bi ak suñu benn frère bu ñu wax abukan ñu nekk ci segi di ci japp lu ñu mën def ci daal jumaa ji nag ngi ni mais ñun jumaa ji wax dëgg yalla bu yalla tax ñun gisuñu ci ndimbal bo xamne dafa joge ci maire yi nit da ngay waxal yàlla ndax lamp yi bu burlé may dem yelwan docteur ndjay may may lamp lu leer la lay wax ñu def fi xam nga luma la ci jumaa ji ci lu wër jumaa ñi def ci ay lamp buntu segi dañu taw daw, mu inondé ay mbaa xuux di ci dugg wa maire bi ñu né ñoo leen di buntu ñu fa buntu fami madoki madoki mu nga déglu mo bu baax fami madoki ñoo ñew cotiser defar buntu bi mu dess peinture yàlla indi fii Ousseynou Diouf booy Ousseynou Diouf ma woo xaalis Samb waxtaan ak moom ma ne ko nañ ñaan Ousseynou Diouf peinture ñu woo ko ñu ne ko Ousseynou ñun de buntu yi dañ koo defar famille Madoki moo cotisé buntu yi pour defar ko mais yàlla def ne amuñu peinture Ousseynou Diouf bu ne ah mu ne ko waaw mu ne man dinaa jënd peinture Ousseynou Diouf moo peinture buntu yi xam nga lu ma la sëgi am na koo xam ne waaye yàlla la ñu koy wax almaami Guèye moo ñëw bale ko du mairie de dama lañ wax lu leer mairie balewu fi defu fi dara moo ñëw jël ay nitam jël alalam def ci wàcce fi ay kaamil ñu ñëw def fii ci bale bale seeg yi defar ko ba mu baax am na nag suñu benn sœur safaw kan mu ci koñ bi vraiment day social di jàppale koñ bi lu fi baax ci terrain bi yàlla ak safaaw la 12 mars yi bu setee moom la miru pastu bi moo ko defar jël alalam def ci jël suuf def ci defar koñ bi ba mu baax jigéen la de laa la wax jigéen la laa wax di jàppale nit ñi moo ngi fii ci koñ bi ñu koy wax safaaw kan kon daal yéen yéen suñu euh, ci gàttal daal dañu ne way politique yi daal euh, amul euh, defuñ seen loxo. ci ah. jumaa beeg sëg man de gisuma ko jumaa ji daal yàllaa tax may wax docteur Ndiaye bu lamp burlee su ma ñëwee wax ko dina ci jàpp man yàllaa tax may wax xëy na dañ ko seq. ma la am na yeneen woy politique yu nekk Grand Thiès yoo xam ne ñu ngi ci am na jamono yoo xam ne dama lay wax lu leer yàlla na ko yàlla yërëm du Dieng dañoo toog fii pendant trois mois fii yëpp du takk fii yëpp du tàkk affaire bi jaaxal nit ñi bu mag ñi julli ji day lëndëm koñ bi kii yëpp doy na waar quartier yi grand caisse yëpp lëndëm boobu maire bi du équipe bi moo fi nekk beneen équipe bi moo fi nekkoon ma ñëw doom këram moom yëpp xam nañ sama xarit la ma dem këram waxtaan ak moom ma ne ko Dieng ñun de suñu koñ li ma jaaxal lu tombale grand caisse ak lazareek foofu yëpp kii bi ñu ne ko ñu ne problème bi ci poste bi la bon ma ne ko nag léegi doon jàppale lu mu tàkkee Lamine Mbaye agent Sénélec xaritam la ñoo maase ñoom fondoo moo Dieng Lamine Mbaye toogee ma ko Dieng mu ne ma ah loolu ñu mu ne la ñaata la dem ma ne ko man xaw ma ko bu mu ko laajee Lamine Lamine nee ko euh, defe naa cent mille francs la euh, quatre-vingt-dix-neuf mille la xaw ma yëkkati cent mille jox Lamine Mbaye mu dem jënd affaire bi même pas trois de temps kaw bu tàkk boobu moo fi tàkk ba tey Mamadou Dieng te du Dieng fu mu dëkk ma Madina Fall dama lay wax man yàlla rek a tax may wax beneen buntu segi famille Madoki ñoo defar seen buntu. mairie bi moo digee woon defu ko ñoom ñu ñëw defaral seen bopp jël seen famille defar seen buntu ñu pare Ousseynou Diouf ñëw pentir ko. bu baaxee fii ci sëg yi abu kan mooy ñëw ñu taxaw waxtaan ak abu ñu ñëw rek la ko man de gisuma fi ndimbalu mairie bu dee dañ naan mairie moo yor sëg ñun sëgu grand caisse jumaay grand caisse keroog jumaa ji bu mu desee 4 jours safaaw kan moo dajale jigéenu koñ bi yëpp dajale leen indi leen ci jumaa ji ñu bale ko ba mu set wecc man yàlla rek a may wax yàlla kese. ndax si waxuma ci pour wàllu kii man ku def man gisuma fi beneen homme politique boo xam ne ministre nga maa leneen nga ñëw nga def nga fi man gisuma ko gisuma ko de wax dëgg yàlla yàlla rek a tax may wax te dañoo nekk ci biir ma nekk biir jumaa ji di ci wax te fen dafa haram te li may wax lu wér péng la kenn mënu koo dindi lu dul yàlla ñii daal laa xam ne su ma waaxoo dem ci ñoom man leen def leen dinañu def xam nga lu ma la mais l' essentiel que daal ñun xamuñu xamuñu njëriñu mairie fii ci jumaa ji xamuñu njëriñu mairie ci sëgi xamuñu njëriñu mairie ci terrain bi terrain bi heure bu setee sa kan la dama lay wax lu leer boo duggee ci koñ bi nga laaj dañ la naan moo terrain bi xoolal suuf si ne fii suuf jegee nga jël ko yëpp moom la miir yi moo koy defar ne bu fi kenn tuur ndox defar ba mu baax